dal leen ak jàmm ci info 221 seen bi leen di jox xibaar yu wér te wóor abonné leen ngir dara bañ leen raw tey ci xibaar yi mbokku internet info 221 wax naka ci mbirum Coura Macky nag xam ngeen ne kenn du ko lam-laame Sénégal moom mi nga xamante ne nag dafa daal di dëggu ci coalition Benno Bokk Yaakaar di rawatina cofeel mu am ci président maki Sall moom nag Macky Coura maki mile dañ ko agressé woon foofu nag ca New York ay doomu Sénégal yu bokk ci parti Pastef ñoo ko daal di attaqué woon député bi Coura Macky Coura Ndiaye ñu gën ko xam ci Coura Macky dafa nekkoon victime d'attaque ci agression niki dimanche bi euh, euh, fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru septembre 2023 fale ca New York ay ndaw sénégalais yoo xamante ni parti Pastef lañ bokk ñoom ñoo ko attaqué woon bu ñu sukkandikoo ci xibaar nekk nag ab acte boo xamante ne dafa provoqué colère noire waaye tamit kekk euh, camarade réew ñu bokk ci mouvance présidentielle ak alliance pour la république présidente bu cette structure di Ndeye Saly Diop Dieng jot na nag ñaawlu attaque yooyu nga xamante ne dañ ko ciblé rek jëmale ko ci kuram ak mi leen lekk na ne daal dégg di def di agressé koo xamante ne ab jigéen la représenté nag peuple Sénégal foofee dem fa di doxi ay soxlaam ginnaaw ba nga xamante ne jot nañ ko lancé ci euh, devenu ci viro ci la ñu honoré ci image du pays Sénégal gis na daal jamono ji doomu sénégalais lu ñu def ca bitim réew dafa jéggi dayoo waaye tamit yenn violence yi nga xamante ne ñu ngi koy def ñu fekkee moo xam mouvance waaye tamit ñeneen ñi nga xamante ne daal jot nañ leen agressé wala sax ñu def la leen ni Ndeye Saly Diop Dieng nag mi ngi a baax tamit képp ko xamante ne responsable euh, APR nga rek euh, boo moyut say fan nag du gudd ndaxte ñu féete ci Pastef nag jamono ji faagaagal leen rek la ñu bëgg du samay kaddu euh, kaddu la kiit di maître kii di Ndeye sali Diop Dieng moo ko àddu kuram ak daal comme ni ngeen ko gisee ñu leen di wax dañ ko agressé woon ni ki démb. Euh, foofee nag ca New York ab fàttali nag président Macky Sall sax ma nga woon nag ca Amé ca Amérique ngir fas yéene teewee euh, lii di assemblée générale des Nations Unies bi nga xamante ne niki dimanche démb lañ ko fas yéene ubbi.